jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñuy topp ci Medina TV ci Sénégal waaye ci àdduna wërngal këpp ñu ngi leen nuyu mbokk yi di leen ziar amaat mbégte ak contentement ak yéen comme niñ koy defee saa su nekk Medina TV di leen jaajëfal ci ànd bi ngeen di ànd ak moom ngir lépp loo xamante ne actualité la ci réew mi ak ci bitim réew ngeen di ko mën à temps réel kon dañ koy dox ak waxtaan boo xamante ne dinañ ko seek ak suñu yaay suñu xarit bu ko waxee taalibe Serigne Saliou bi la la grande voyante soxna Aida bu Serigne Saliou yaakaar naa ne nekkatul koo xamante ne dañuy koy présenté ci réew mi à travers liggéey yu am solo yi nga xamante ne def na ko borom social euh, borom. taxaw ñi nga xamante ne ñoom ñooy néew ju doole yi ki nga xamante ne nee naa la réew mi góorgóorlu na ba imposé fi boppam ba lépp loo xamante ne rek nit yu baax yaa ngi koy def ci réew bi mu koy def muy koo xam ne itam suñu yaay la euh, kër gi amuñu fi benn sens interdit suñu ñëwee saa su nekk rek ci yaatal bi ci tawféex beeg lépp ñu leen ci euh, ndokkeel bu baax a baax yaa booy nag euh, tey xew-xew dafa am suñ ko waxee ñu ne le 27 janvier ñëpp xam nañ ne benn le 27 avril suñ ko waxee ñëpp xam ne kon benn dat la si date yi rawatina nag atub ren muy anniversaire Wally Ballago Seck comme ni mu koy defee saa su nekk trois date lay doon ci mois d'avril bi su ayee su ñëwee ñëpp xam ne Faramareen bi moo ayee ren mu koy feete tey du jour anniversaire am ñu seet si la gis nañ wàccee kaamil bi gis nañ teraanga yi gis nañ sarax yi gis nañ ñaan bi waaye balaa loolu lépp dañ lay bàyyi nga nuyoo ak mbokk internet yi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan su ko defee nag ñu waxtaan ci sa bisu doom sa xarit. waa salaamaaleykum àdduna wërngël képp maa ngi ziar ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay euh, di leen ziar ziar bi gën a mag waaye di leen tatagal tatagal bi gën a mag di ziar ñëpp bàyyiwuma kenn di ziar sama sang bu tedd ba. borom na la njuru nag daaray ndokaa nag boroom njawaan ngi ci xay gi ki nga xam ne moo ma def nii ma mel moo suukar sama café ba mu saf ñëpp maa ngi ñaanal ñëpp jàmm waaye nag xam nga nag suñu buntu ci kër sëñ Touba sëriñ Mountakha Bassir ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér waaye di ñaanal sama xarit bi soxna Aïda Saliou Thioune moom Cheikh Béthio mi nga xam ni ah, yam yamalewu maa kenn walla gënalewu maa kenn waaw waaye di nuyu sama doom Wally Ballago Seck Faramareen di nuyu sama doom centre du peuple waaye di nuyu sama Michael Jackson Seck man Soxna Aida Saliou man sama doom Michael Jackson sekk laa koy wooye waaye di nuyu képp koo xam ne sa xol bu nu ko xoolee rek gis waali ci say bët di nuyu waa diaspora Sweden bàyyiwuma kenn képp koo xam group nga yor rek tuddee ko group Faramareen tuddee ko Waly Ballago Seck ngay xale ngay mag nga xam sa activité yëpp ci waali nga ko def noppal nga kon yow ñu ngi lay sant di la gërëm di la jox loxo waaye di nuyu soxna ay dara ki nga xam ni tey bu nu gestoo gisuñu kinne rek bu nu ko gestoo rek suñu xel day dal di ko ñaanal gudd fan ak wér ak tal yàlla na mucc ak njabootam ak ku ko ko yéene ci barke yonent bi alaatu wasalaam ñaanal sama doom faramaareen Michael Jackson Seck loo bëgg a xam sàmba jaara bu so maa ngi lay ziar. Euh, euh, waaw xam nga àdduna moo bindee noonu bu ñu sañoon lu xew Kiné Diouf day toog bu ñu sañoon lu xew Kiné day toog. waaye ku dul may sa bopp lu la yàlla may nga jël ñu am ci sant yàlla lool nag xam ni ki nu jox ki te jox nu suñu bopp ñun ñii banu fi moo def dogal bi ko neex ñu dellu rek wax alhamdulillahi rabbil alamin sant yàlla julli ci yonent bi alaatu wassalaam waali ki dem na waaye ki ne demut ndax jëfu kinne ñaanu kinne lu yaay di séq ak doom ci àdduna kinne def na ko waali ñaan na ba fi sant na ba fi gërëm na ba fi kontaan na ba fi ñu ñaan lépp loo xam ne bég na ko ci doomam ji yàlla na ko ko suñ boroom defal waaye Kiné daa ami rakk ami mag ami yaay ami xarit te ndokk ba mu xamee ne doom ji mu jur suñ borom da ko koo jox waaye tànn ci ay tànniif ay yaay yu bari bari li jur waali te waali xamu leen lii ñaanal waali te waali xamu leen ñi cofeelu ci waali di ko ñaanal di julli pour waali rek waali xamu leen ba tax na kin na juuf weetul ci yaay ji benn yoon waaye ñi ngi sant yàlla ci dogal bii mu dogal moo sañ a dogal bu la joxee nga sant bu jëlee nga sant ak nu mu ko jëlee rek ñun santee nañ ko yàlla sunu borom waaw xanaa li yàlla def ci moom tànnal ko ndey ju baax tànnal ko yaay ju baax tànnal ko koo xam ne ci tànnee fi la jox ko ko joxin bu rafet mu ne fi ba demam jot mu dem ci demin bu rafet te bàyyiwu fi dara lu ñaaw bàyyi fi doom joo xam ne macha allah ñu ngi ñaan yàlla yàlla guddal fanam ak ku mu bokkal kinne loolu rek la Wally dafay xam ne am na ñu ko yàlla boole loon ñuy benn doom rek mënuluñ seen bopp dara yàlla teg leen ay nattu ba pare tegaat leen nattu jël seeni waajur te tey boobu ba léegi Wally ngi leen di taxawu Wally bu xoolee ci ñooñu jël loolu taf ci boppam day muñ ki ne bi mu fiy nekk sunu borom rek la dénkoon Wally at mu jot da koy ñaanal ci sunu borom waaye partagé ko ak ndey yëpp loolu rek la. metti na mettiwul boo jëlee ci li metti lépp sunu borom di ko teg jaam te munoon koo teg loolu te tegu ko ko ah yóbbu kinne ba pare wéetal ko waaye dafa yóbbu kinne ba pare utal ko ay wéttali waaw looloo tax. waa xam nga ay Aida Saliou yaay waali loolu képp kuy liir soxna ay Aida Saliou ci red sociaux ba soxna Aida Saliou feeñee ci réseaux sociaux xam mi ngi bëgg am ay at yu bari boobu ba léegi soxna Aida Saliou yaay waali rek ngay dégg soxna Aida Saliou yaay waali rek ngay dégg ku ne soxna ay Aida Saliou rek yaay waali rek nga ciy teg te baat boobu ki ne ko njëkk a wax ki ne njëkk a wax yaay waali ki ne fu ma fekk rek Wally def ñu abal yaayam ki ne su ma ko fekk jee xew sax danaan ah Wally def ñu abal yaayam waaw moom moom ndeysaan sant rek ku dul may sa bopp lu la yàlla may nga jël ñun deful ki ne deful li tax yàlla yóbbu ko ñun defaluñu yàlla li tax mu bañu fi te kenn xamul kañ la ak fan la moo tax ñu ngi ñaan lépp lu nuy def ci doomam yàlla na doon mbégteem ci àjjanay firdaws ak kum fa fekk ak ku ko fa fekk euh, Wally nag nga laaj ci soxna Aida Saliou mun na sori mun na bañ a sori ndax waali bi ma koy bëgg xaw ma kinne xaw ma waali papa coon laa doon bàyyi xel di ko déglu déglu di ko déglu déglu lu daal waaw côté 2005 2006 2007 waaye bi waali nee koy mat rek ñu ne kii doomu papa coon la rek suñu boroom daa jël ndogali rek balancé ma ma bëgg ko rek te bëgg googu ma ko bëggoon ci yooyu jamono jamono jii la gën a neex jamono jii la gën a foor jamono jooju la yëg-yëg bi gën a foor ma yalwaan yàlla suñu boroom maa ngi yalwaan suñu boroom maa ngi yalwaan sunu borom yàlla na ma bàyyeeg sama doom ji wali balaa ko sekk. Mm. ayca yal na la yàlla bàyyeeg moom yaa booy euh, des nit dina bëgg nit. waaye cofeel gi day am fu muy yem waaye yaay sa digganteeg waali dafa am complicité boo xamante ne dafa am ci biir dafa am loo xamante ne tey sa diggante ak waali lu kenn mënul wax la seen si yéen ñaar entre yéen ñaar waa soxna Aida Saliou ak waali doom la butit njureel mm-hmm. man Aida Saliou awma sago ci waali ndeysaan waali mënuma koo xool xool mënuma jàkkaarloog moom fixé ko waali liñ gisante yëpp matul cinq fois mm-hmm. ma ma da lay bëgg waali ba tey matul cinq fois parce que man du dem fenn mm-hmm. te yàlla dogal na ci dogalam yi bëgg naa borom xol bu rafet mm-hmm. man du n'importe qui laay jël di ko dugal ci sama xol bëgg naa borom xol bu set bëgg naa ko baax waali bàllaago bari na yërmande baax na dégluwut lu bon dégluwut lu ñaaw waali ay noppam noppi garmi la ay bëtam bëti garmi la waali lu muy dégg lu ko lu rafet lay doon waaye bàyyiwul xel lu ñaaw ak yar bi yal ko yàlla fàcc yal na ko yàlla muccal ci làmmiñ bu am tooke waali nag dama ko bëgg ba pare mu jaral ma mbëggeel gu yàlla rek yëg te yàlla rek laa koy seedeel waaye ndokk ba yàlla dajalee xol yi xam ne luy dëgg rek kay dëgg lu jóge ci xol ci xol lay dellu waaye ak koo xam ak koo yëg ni ma koy sentiré noonu la may sentiré. Mhm. ni ma ko bëggee noonu la ma bëggee. Mhm. ku mu am noonu la ma bëggee. ku mu bokkal noonu la ma bëggee. ku féete ci moom noonu la yëg ci Soxna Aida Saliou. Mhm. ku bëgg waali rek noppal na ma. ku fan waali rek noppal nga ma. ñi bëgg waali te mu sincère. te yàlla rek tax te dëgg rek tax ñooñu li ñuy yëg ci Soxna Aida Saliou man xam naa ne loolu rek la waali di yëg. yaay yaay dañ koy dañ koy dëggal euh, gis nañ chaque jour soo amee bis njabootu waali niñ lay taxawoo rawatina euh, gis nañ ci koor gi lu am solo li nga xamante ne def nga ko mooy sargal euh, soxna Kiné Diouf daal di ci def ay berne comme ni nga ko defee ci koor gi rek miin nga ko waaye dañoo gis keroog taxawaay bi nga xamante ne waali famille ñu takk ci waali mais lenn loo xamante ne itam tiré na attention ñu bari muy ñëwu soxna ay dara ku ko xam-xam ne nekkul koo xam ne ku ñuy gis partout la soxna ay dara duñ ko gis fépp pour nga gis ko sax dafay jafe mais soxna dara tey bàyyi ay yitteem ñëw ba ci kër soxna ay da daal di toog ci bâche bi ah yaa booy mu mel ne nag kon li ngay wax ne waali delloo na ko dañ koy dëggal. waaw loolu moo mujj xam nga li may wax ne li ngay séq ak nit muy mbëggeel te yàlla rek tax muy cofee te yàlla rek tax du lu ñuy wan ci média xam nga tey anniversaire waali la 2024. Mm-hmm. day jaadu ñu am tuuti leeral. Mm-hmm. mbaa xam nga ni fu ma mës a nekk ci àdduna muy naqar muy bànneex bu ma gëstoo kinne laay njëkk a gis. ndeysaan ci boppam. muy mhm. ñëw fekk si ma foofu. Mhm. am naa dëj sama rakk koo xam ne jamonoy sumbeek mu xam sa la nu ànde jaro mhm. bi waajuram wàññeekoo kinne dafa ànd xujja ñaŋ ñëw fekk si ma ci dëj bi fajaa dama tiit. te demul réseaux sociaux mm-hmm. demul internet demul TikTok mm-hmm. parce que amatul lu may trouver ci sama digganteeg Wally luy jaar ci média mm-hmm. sama digganteeg Wally c'est privé diggante doom la ak yaay day fekk ne am na yoo xam ne bu nu ko laalee wala nu wax ko li yaay di yëg rek la laa mën a yëg dafa am benn maara bu góor bu ma sa taxaw wax ne mhm. maa ngi koy nuyu au passage ñas sax laay wax pour mu leer ci bëtu nit ñi mhm. dafa mës ne yeneen i jaaga ci ay jamono dafa mës ne kon yeneen i jaaga dafa am mhm. kon yeneen i jaaga dafa am te yëguma ko wala yeneen i jaaga dañ leen a créé te yëguma ko ndax munoo wax soo waxee cubaar rek ñu jóg dal ci sa kaw boobu xamul ne man li may yëg amaana jaaga sax yëgu ko ndeysaan Mm-hmm. tolluwaay boobu laa am ci waali te waali bu doon kuy tontu wala kuy waxit man xam naa ne tolluwaay boobu la am ci Aida Saliou mm-hmm. ki nga xam ni dalaa bëgg nga yëg ko ci sa xol ba booy tabaski xar mi gën a baax yaakaar nga ni Aida Saliou moo ko war a jot te xaaruma ko woon ci waali munoon naa bëgg waali ba àddunay tukki di sori ci moom ba àddunay tukki te duma sa cinq cent francs bu waali mm-hmm. parce que man dama yaakaar ne doom la rek ndey moo war a def man tolluwaay boobu laa am ci waali ak ku muy àndal nag. bëgg nga waali rek bokk nga ak waali rek mm-hmm. xam nga waali rek wax nga ci waali lu rafet rek Aida Saliou amul ci yow sago nga yëg ko ak ñàkk koo yëg. Mm-hmm. Mm-hmm. ki ne këram keroog bi ma fay njëkk a dugg 11 mars 2023 la te dama bàyyi ba mu tëdd. Mouhamed laa jox kartam waaye dama bàyyi ba mu dem fubbali soxna laa jox kartam <laughs> bi may delluwaat kër kinne mooy keroog bi Alioune Seck di takk jabar ci laa delluwaat kër kinne parce que dama yaakaar ne nit boo ko bëggee dangay sori lool di ko bëgg jege taxut a bëgg bu jege taxat ndax yenn saay yi gise bi bari lool te xol yi soree lool waaye yenn saa yi eh, gise bi soree lool waaye xol yi jegaan tool lool ndeysaan nongoloo wayoon na ko man foofu laa toll ak ci ki may bëgg réew mi nag ku fi baax te suñ boroom def ci yow jëmmi mbaax doom daal bu fekkee ne benn la bu ñuy sentir ci xol di ko yëg ci xol ci man Aïda Saliou wali bàllaa ko la te tey jii may waxee yow maa ngi ñaan suñu boroom di ko tàllal ay loxo di ko koy yalwaan Mm-hmm. jirim laa mm-hmm. di caat mm-hmm. di ku rafet xol nag bi may tuut fi ma duggoon ba léegi filaane dala sama mag jëkki ne waxoon rek laay wax mooy jëkkër ju njëkk mooy jëkkër ju mujj yàlla na ma suul ndeysaan waaye waali ku ma bëgg la ci sama xol yàlla rek laa koy seedeel. Mhm. bëggatuma ci sax di ci débat ci mhm. média. am na yaay yi bari nañ trop. Mhm. ñi bëgg waali te xamuñu ko. mu ëpp ñi bëgg waali te waali reconnaître leen. loolu nag suñu borom moo koy def jagle la. pour confirmer waaye bëgguma ku bon. bëgguma ku soxor. bëgguma ku iñaan. bëgguma ku suñu borom dimbaliwut. Aïda Saliou set boolewu ko ak waali mbiri suñu borom moo ma boole ak waali te ba àddunay tukki nu mu mel baax na fu mu toll baax na fu mu yegg baax na moom rek laa bëgg. ndeysaan loolu moom yaakaar naa amatuñu lenn loo xam ne dañ ko ciy teg yaay tëj nga débat bi waaye yaay am na loo xam ne danga ma koo dee sànq dama la nga ne tey surprise mën naa am lu mën naa xew yaay loolu nag fi mu ne nag lëmbaje na sama bopp bi ndax man damaa bëgg nga wax ma lan moo war a xew. tey waaw xam nga vogue démb waali dafa balance. Mhm. ah yaay démb li mu fa def noonu balance la. non non démb mooy premier jour vogue. waaw waali dafa balance. ah yaay démb ak li fa am lépp dafa balance xam nga boo gëjee way sa réew. Mm. xale yi namm waali te wax na leen ko ba pare mu tombé anniversaire bi. Mm-hmm. faaw mu mu mu wékkumb bu ñëw balance ak ñoom. Mm-hmm. faw ak ñoom. Mm-hmm. ambiance ak ñoom. waaye tey. ah. way mën na am. ah ah kon kon kon. yaay tey il faut maar way. ah yaay foofu tey dina garaaw de. ndax waar maar maar bu wayee nga bëgg ko. maar bu daagoo nga bëgg ko. bëgg waali ci xol leneen da caa xajut. man Aïda saali ba ma bëggee waali ba tey dama am tawféex ba ma bëggee Wally ba tey damaa mucc man borom mucc gi laa ko tuddee Wally borom mucc gi tey bisu anniversaire am bii su ma amoon billet màkk dama koy jox Wally su oto bu rafet dama koy jox Wally mm-hmm. Mm-hmm. tey dama ko bëgg a jox cadeau boo xam dafa sori ci man ko jox bëgg a jox cadeau boo xam ne tout le moment surprise mën naa am ah, yaay nag yaay waaw waaw baax na ba tey ñu dar la rek ñun cadeau bi moom fi mu ne dara du ñu ci rëcc ndax dinañ la dar ne dar men daraa yaay balaa balaa ñuy jeexal gi nag dégg nga itam li nga xamante ne moom mooy coowal jet privé bi nga xamante ne soppe yi wax nañ ko comme ni nga koy waxee amuñu amuñu limite ci moom xëy na itam cofeel gi la gis nga bi mu demee Guinée ñibbi si Omaro daal di def sorti ne jot na nag sénégalais yi cotiser utal waale li nga xamante ne moom mooy jet privé loolu nag xaw na indi polémique yow bi nga déggee loolu rek ban jàngat nga ci am. waa man deux mille vingt et mhm. deux mille vingt et un laa mhm. ne Wally deux mille vingt mun na nekk Wally Jackson Seck. Mm mu ngi dem 2022 maa ngi xaar ci moom Michael Jackson <laughs> mais 2023 ma gis 2024 may xaar ci moom Michael Jackson fekk la mu raw ko mm-hmm. exemple la rek bu may joxe mm-hmm. mais pour ñu toog lépp lu suñu borom di jagleel doom mm-hmm. nit ci réew mu koy am muy lu ñuy naw muy ndombal tànk wala muy daraja ci lu baax ci lu kawe. Mhm. mën nañ ko xaar ci Wally Ballago Seck. Mhm. jag privé moo gën a ndaw. Mhm. jombul bis dina ñëw ñu ne li dàq ci àdduna bi wala li gën a rafet ci àdduna bi. Wally Ballago Seck moo ko moom. yàlla na ko fekkee. ak ko ko yéene. yàlla na ko fekkee. te bu ko fekkee yàlla na ko jig. te bu ko jigee yàlla na ko am ko war a àndal ñëpp. te bu kenn manqué. loolu daal laa ñaan suñu borom waaye lépp lu doom di am doomu jullit di ko am ndey ju baax di ko liggéeyal doomam ci biir kër doom nag doom nag mbind la doom mbind la lettre lay doon dañ koy kaste waaye bu doom màggee mën nañ koo liir te waali man pour man lettre la ci kër Papa Thione waaye lettre la ci askanu Faramareen maa ngi ñaan daal sunu borom di ko mm-hmm. ko yalwaan mm-hmm. di ko ko yalwaanaat mm-hmm. am na ko mën na ko yal na ko sàmm te yal na ko aar ak ku ko ko yéene bëgg waali ci xol leneen da caa xajut waali borom mucc ki yaay tey di jour anniversaire message bi nga xamante ne ma maa Diaga moo ko doon lancé comme ni nga ko waxee ñëpp am nañ tey am na yaay yu bari ndax lu sotti am boroom comme ni nga ko waxee waaye tey yow ban message ban message tey ngay toog lancé ko sa wax wax ko sa doom euh, dénkaat ko ko waaye ñaanal ko ko tey ci bis bi nga xamante ne itam mooy bisu anniversaire am. da ngaa wax nag at bu am solo. Mhm. nga ne lu sotti am boroom fel naa loolu. Mhm. Mhm. olof a ko wax. olof ba mu koy wax. boroom xelu baadoo la yaa tax mu wax ko. yenn saa yi nga gis lu sotti lu war a am boroom. ndeysaan te boroom du xam lii lan la. ba leneen xam lay lan la mm-hmm. waaw parce que Wally ko Seck mm-hmm. du doom ju sotti rek am boroom mm-hmm. ay jagle la ci sunu borom kenn ku ne tibb ci nar wi sa wàll waaye bi nar bi ëppee nee naa la kinne mi tay tay bi am na lu mu fekk te am na lu mu fi bàyyi lu des lu bari waaye day am na ñoo xam ne ba Wally taxawee ba tey ba Wally dooree ba tey ci lu mu yëg ak ci lu mu yëgut ñu ngi koy bëgg rek te mënoon nañ di ko bëgg ba àdduna tukki mm-hmm. te xam naa ne saa yu nu xëyee wala nu tëdd barke yonent yàlla Muhammad mm-hmm. maa ngi ñaan luy nar a ndog wala lu nar a nekk gàllankoor wala lu nar a nekk faay yàlla na ma dal te bu mu dal waali bu dee luy kawe mm-hmm. ak luy yokkute ak luy fël ak lu ñëpp di bëgg ak lu ñëpp di séen ak lu ñëpp di rafetal tamu baax bu dee ñëw yàlla na dal waali foofu laa toll mm-hmm. neewoon naa leen nag kin ne da koo jur rek wax naa ko ca màkk mm-hmm. am na vidéo bu waali statut tey mm-hmm. boobu màkk la woon vidéo boobu loolu laa ci doon wax nee naa waali kin ne daf ko nàmpal rek waaye na santiir ne am na nday yoo xam ne li ñuy yëg seen biir di ko yëg seeni sidit ma yaakaar ne ñoom ci la waali daggee man Aida Sall dama cee bokk ku ne mhm. nag yaa xam li ngay yëg mhm. tàngal ka kaka ma ca xam lu muy saf mhm. man xam naa ko mu defalati ma nag loo xam ne jar na ma di ko tarbiwu jar na ma di ko liggéeyal jar na ma di ko topp ba àddunay tukki mooy mooy wan Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waali mooma wan bayti laay xaraam waali moo ma wan lu sama yaay gisut waali moo ma wan lu sama baay gisut waali moo ma wan loo xam ne doo mën naa màgg ba ba am yéene wan ko waajuram waajuram du ko fekke waali moo tax mm. ñu may woowee yaa xajjaa mm. baat bi ma Kiné Juuf daan woowee yaa xajjaa waali moo tax ñu may woowee ajaratu mm. waali moo soppi sama tur waali moo tax suñ ma daan xool ci internet may waxee beneen aal waali moo tax ma riir ki la loolu dëdd loo xam ne àdduna rek a tax waali moo wàññi samay jooy moo feral samay rangooñ kon yàlla bu ko sunu borom jooy loo waali yàlla bu mu gis lu ko naqari bi yàlla ko féete téeméeri at tey naroon naa wax ci moom ba pare te duma jooy war a jooy waaye nag lu feeñ ci xol rek dellu ci xol mhm. waali baa laa ko sekk noonam du bég noonam du kontaan xam nga ku ma yërëm ki defoon lu mu munta dindi ki defoon lu munta dindi ci waal yi te du ngëneel kooku laa yërëm waaye ku yàb ku xam li sunu borom namm ci ab jaamam tey dogal di nga teel a nangu te teel a nangu da yombali duma <laughs> yàlla baax na mhm. dénk naa ko yàlla ak yeneen bi sëriñ tubaak seexul xaddim yàlla na ma ko yàlla sàmmal te lépp lu mu am yàlla bu ump kenn yàlla na ko suñu boroom dëgëral waaye yàlla na ko bàyyi jabaram ju baax ji soxnaay dara man mooy sama Kiné Diouf di ñaanal Kati Diouf di ñaanal rakkam yi bintoog ñoom Mouhamed ak ay Aïcha bàyyiwuma ku Kiné bokkal rek soxna Aïda mu ngi la yëg waaye kuwaali waali bokkal rek soxna Aïda mi ngi ci biir këram waaye xolam a ngi ci yow